jaajëfewaat leen bu baax yéen suñu internet ñu di nuyu di leen ziara bu baax a baax di am contentement jano yéen chaque jour mbégte bi nag mooy di leen indi li gën a fës ci bopp xibaar yi ci noonu nag damay nuyu ki ma feggool rek di Assane Wall daal di ñëw jukkil leen li gën a fës Assane nuyu naa la Ndeye Bakké fay naa la di nuyu internet wu TV amaan mbégte jàkkaarloo ak yéen pour indi leen li gën a fës ci yéen kaay lamb ci vendredi 16 avril 2021 journal suñu lamb moom xëyee ci xëtam bu njëkk Eumeu Sène Boy Niang numéro 2 ont échoué à l'arène nationale Ama bale sa lëbu ndaw bu ca Pikine pour baliser la voie mu mel ni rek dañuy xaar kii di Ama bale mu jéem a dindi li nga xamante ne nii mooy malédiction ba fa am ci arène ginnaaw ba fa ñaari doomu Pikine yépp lancé moom moo ca war a bëri contre Modou Lo Assane dëgg la Ndeye Mbacke Eumeu Sène Boy Niang 2 échoue à l'arène nationale Ama pour briser la malédiction contre Modou Lo noonu la ko journal suñu làmb waxee ndax foofu ci euh, arène boobu nekk ci Pikine doomu Pikine yi souvent bu nu fa ñëwee dañuy daanu ndax Boy Niang jaar na fa daanu contre Lac de Guiers 2 Eumeu daanu na fa euh, Aliou Mané daanu na fa Jatli daanu na fa ñi ñëpp euh, daanu nañ fa donc Ama Baldé war a jàkkaarloo Modou foofu ci arène bi looloo tax journal suñu làmb tey mu xëyee titré noonu nee na Ama Baldé ndax dina briser malédiction boobu contre Modou mi nga xam ne ni moom laa dajek ci pour disputer couronne roi des arènes. te noonu nag kii di Ablaye Diop. maire Pikine ginnaaw raay sud Assane Wala lam ci xam ne nag mooy combat royal boobu dayoom ëpp na fi nga xam te ne nii mooy arène nationale Assane. dëgg la euh, Ndeye Mbacke Ablaye Diop moom mooy maire euh, bu Pikine ginnaaw raay euh, sud. moom nag euh, ñaari njàqare la am ci combat boobu war a dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo te ñu war ko defee foofu ci arène nationale moom li mu tiit nee ne euh, waa Pikine dañu jege trop arène bi moo tax nan nañ ko duy ba fees loolu population bu nu fa dajee euh, loolu est-ce que du indi wàllum insécurité wax na également ci xataayu arène bi nee na arène bi dafa xat lool ci di ci war pour dalal combat bi war a dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ndax ñooñu dañoo bëri supporter nee na daal ñaari kanante yi la am moo tax nee na bi passé seen euh, face à face bi amoon gis nañ lu xewoon seen TV te loolu tamit euh, organisateur combat bi war nañ jël ay matukaay ba le jour ji ñu mën a jël seen disposition bu baax. mu ngi noonu entraînement en période de Ramadan kii di Omez moom mi doon tàggat. kii di tafaatin lam ca xam ne nag mu ngi jox mbëri ay plan yoo xam te dañ mën a entraîner san pour autant ñi gaañ seen bopp Assane dëgg la euh, Ndeye Mbacke Omès Diagne moom mooy benn technicien la observateur nekkoon également euh, coach euh, Tafatine moom nag dafa xëy ñu do di wax di addu ci wàllum entrainement boole ko ak weeru koor bi nee na entraînement yi dina va baisser par rapport au rythme de de la compétition nee na euh, entraînement yi mbër yi ni naan daan entraîner en dehors euh, du mois de Ramadan dañ koy wàññi ndax mënoo xiif mar ba pare boole kook yenn yenn entraînement yi wax na également contact yi mbër yi moom buñ ko sax euh, def ndax c'est risqué contact dafa métti te ànd kook weer weeru koor day gën a métti lool moo tax du leen ko conseiller. ca noonu nag Azou Diop chargé de com du Puncheur de Waalo la mu xam xamle ci journal nee na. rien ne va empêcher à Lac de Guiers numéro 2 de battre Gris Bordeaux tekki nag ne combat royal boobu di dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé am Lac de Guiers numéro 2 pare na pour bëreek ñoom ñaar ku ci daan. dëgg la euh, Ndeye Mbacke xam nga Lac de Guiers bi mu daanee Eumeu Sène ñu bëri dañoo euh, gis ne prochain adversaire am Gris Bordeaux moo gën a nekk en pole position looloo tax nag euh, ñoom ñii di si camp waa Waalo maanaam Azou Diop mi nga xam ne ni moom mooy chargé de communication bu Lac de moom nee ne Gris daal bu nangoo combat boobu dara du ko teree daanu nee ne Lac da koy daanee forcément bu dee nangu na jël avance boobu wax na également ci combat buy war a dox diggante Modou Lo ak naa ñooñu ku fi dëgg daane rek Lac de Guiers également pare na pour jafulonteeg yow jàkkaarloo yow ndax Lac de Guiers objectif am moom mooy mu jël roi des arènes te roi des arènes ci ñaar ñooñu pour le moment ñoo ko mën a may. ci noonu nag dañuy dem ci bombardier le B52 de la mu xam ne nag mooy il promet l'enfer à Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye nee na du ko may dara dina ko sëkkatal duma ko daal di koy daan ndax combat dina saf te dina metti Assane dëgg la mba Ndeye Mbacke loolu kàddoo Bombardier la looloo tax journal euh, suñu làmb xëyee titre ne Bombardier promet l'enfer à Balla Gaye 2 euh, Bombardier nee na ci journal bi euh, duma ko may dara combat boobu nag ñu fàttali ne Gaston moo ko tëgg mi ngi ko prévoir le 6 le 26 juin bii di ñëw maanaam après koor gi Bombardier nag mi ngi fay wax yóbbante koy galgal euh, Balla Gaye de ndax ne ne je vais marcher sur lui dina dina dox ci kawam dina ko dóor te bu dee xeex tamit Balla gay mooy daw xeex bi mais moom jamais mu daw xeex. la Lion de Guédiawaye lay waxal de kooku moom nee na ku ko dut baaraam mu delloo mu delloo la ko ku ko dóor mu fayoo <laughs> mu nga noonu ci kanam rawali gët qualifié de général bu Fass combat espoir ki ko taxawal la di Sambay Fall. fa nga ko nar a taxawalee mooy la 3 juillet incha allah fee ci arène nationale. dëgg la Ndembake Coly Faye mi nga xam ne écurie caaro sur Mer la nekk mu nga xam ne moom mooy daje général bu Fass. combat boobu nag Sambaay Fall tëgg ko ginnaaw bi mu ko tëggee nag jàpp na datu 3 juillet pour amal combat boobu ñu fàttali ne Kulifay ak euh, général Fass yëpp ci défaite lañ jógee ndax Kulifay dernier combat bi kéwal moo ko daane woon le 22 juillet 2018 euh, kii di euh, général bu Fass moom ñaxi jariñu moo ko mujj daane. ci loolu nag ginnaaw yàq-yàq teef bi amoon ci arène national keroog dimanche. journée Mouniang production ñii di président lutteurs yi ñu sanctionné nag woo nañ leen fee ca samedi ca CNG Assane. dëgg la euh, Ndeye Mbacke ginnaaw bi yàq yàqu yooyu amee euh, CNG dafa jël euh, dogal suspendre juróomi mbër juróomi mbër yooyu ñu mën ci lim Mamadou Sey mi nga xam ne ni moom mooy Boy Diop Adama Diom mi nga xam ne ni mooy fils de Lang Sané. Modou Diop mi nga xam ne ni moom mooy Ngel Koki Moustapha combaan mi nga xam ne ni moom mooy caatu limousine de ak Cheikh Ndiaye di Cheikh Super Jamono juróomi mbër yëpp dañ leen a sanctionné dañ leen aj ñaari at yoo xam ne nii benn bi dañ koy tëdd maanaam bu doon kaso la ñaari at yi benn yoon benn en sursis la nekk euh, deux ans en sursis benn enfermement ah, noonu la yaakaar naa maintenant nag ñii nga xam ne ñoom lañ sanctionné seen euh, président écurie yi la waa CNG convoqué suba foofu ca CNG xam naa pour waxtaan ak ñoom pour que prochainement ñu mën a waxtaan ak seen mbër yi ba euh, jëf yooyu ñu gis euh, dimanche euh, passé ci arène nationale bu mu fa amaat. ci noonu nag ba léegi kii di Malick Gningue président alerte lam ca xam ne nag mooy day xaar décision bi wàcc mu xam ne muy réagir Assane. dëgg la Ndeye Mbacke Malick Gningue moom mooy président ARELS ARELS moom mooy association des responsables des écuries et écoles de lutte du Sénégal moom nag ba nga ko joxee kàddu daf ne du waxagum day xaar ba CNG joxe ay décision euh, définitive pour que mu mën a àddu ci wax jooju waaye nag li muy xamle mooy nee ne d'accordul benn yoon ci li mu gis euh, yàq-yàq yi mu gis keroog ci arène nationale affaire yooyu daf ko choqué te mi ngi wax également waa CNG ñu identifier fautif yi pour leen a ma pour man leen a sanctionner lourdement pour que ñeneen prochainement buñ am fitu dem foofu ci CNG bi di yàq ay chaise wala ni ni mel. mu ngi noonu nag xët bu li ñu naan mbéjum kanam day daal waaye xët bu njëkk day daal lii bu ñu ci jëlee ay décision yoo xam te ne yu tàng jër la ci mbër bu nekk mm-hmm, mm-hmm. bu ëllëgee ku ci nekk boo demee stade di nga xam nooy toogee defar sa toogaay ba mu baax noonu la ñuy jógee suñu làmb dem journal record ca kam xëyee mooy la tay si nga ëmma seen la mu koy xamal ak mooy VIP yëpp écarté wu nañ ci chemin mhm. desul ku di tafaatin wala mu may xale yi chance ni daal di yéeg asal dëgg la Ndeye Mbacke journal record moo xëy wax loolu nee ne presque tous les VIP exclus de son chemin euh, les deux options qui s'offrent à Eumeu Sène nee na ginnaaw bu Eumeu Sène euh, dajeek euh, Modou Lo Balla Gaye Bombardier ba pare ne moom du dajewaat ak Balla Gaye nee ne option yu nekk ci kanamam mooy ñaar mu daje tafaatin wala mu may chance xale yi nga xam ne nii mooy jóg xale yooyu nag mën nañ ci cité ñoom Reug Reug Yékini Junior Sa Thiès Gouye Gui Garga ak euh, ñi euh, toll seen niveau am seen daal euh, pour journal record ñaari choix yi rek la soit mu dajeek Tapha Tine soit mu may chance xale yi nga xam ne ñu ngi jóg na may sant xale ñu def trio boobu ndax jot na ñu may xale ñi yéeg ndax dañoo ne olof ñaar fa wax sax garab ci kaw lay fekkantee mhm. kon ëma seen taalalal xale loxo ñu daal di yéeg maa ngi lay jaajëfal bu baax Assane Waalo loolu moo nekkoon li gën a fës lan ngay di la remercier Ndeye Mbacke di remercier internetu Leewtoo TV di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah muy noonu nag jaajëfal bu baax a baax ah, di nuyu sama caméraman Bilal Bamba maa ngi leen nuyu bu baax a wax di nuyu Assane Waalo bi ma fégaloon Mbaye Babacar depuis Diourbel maa ngi koy nuyu bu baax a baax Kébé Fama moomoo Mané Mansour sama caméraman bi jaajëf bu baax a baax dañ jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV